bee ci sa réew mais tey boo xëyoon nga jël poste yëpp def ko appel à candidature am na sàcc yoo xam ñu fa për diplôme appel boo fi def ñu raaxle ko. mais comme ñoo ko promettre peut-être xëy na. mais mais ñoo mais ñoo ko promettre moo tax ma ne la dama xam ndax déglu nga ma. maa ngi lay déglu Cheikh Oumar. 17 avril le communiqué du gouvernement du Sénégal a dit le président à instruit au premier ministre de préparer un décret pour les appels à candidature pour certains post donc bu fekkee ni. certains postes ñooy xaar appel à candidature ça dire que yii mooy dootu maanaam ci wolof. très bien président jox na ndigal premier ministre am mu préparel ko ab décret ngir defar li jëm ci wàllu appel à pour yenn ci post yi. très bien loolu kay. Euh, merci beaucoup euh, Ndeye Fatou euh, bu ñu ñëwaatee un ci li nga xamante ne moom moo jëm ci wàllu woowu ba tey ñu nekk ci mu bari li ñu doon reprocher quand même le chef de l'État bi fi nekkoon xëy na naam nekkatu fi lu bees dañu gis est-ce que aujourd'hui par rapport ak li ñu jot a nemmeeku on peut parler de rupture. non il y a pas de rupture jusqu'à présent parce que ce sont les mêmes méthodes et mêmes procédés moom la ñuy appliquer parce que critère de nomination engagement politique la euh, peut-être proximité de second abord et après la compétence vient après loolu moo fi amagum jusqu'à présent donc cette politique bi ñu doon décrier dans l'administration sénégalaise elle est toujours d'actualité moo tax ma jàpp ne la politique Euh, peut-être euh, mun na nekk une autre religion au Sénégal parce que bëri na taalibe bëri na ñu koy doxalal li nga xam ne moo di ay réglam politique moo fi indi pour un tout ou un rien man ma mën a am benn poste stratégique ci réew mi dara waralu ko lu mooy ma dàq mobiliser maa dàq défendre sama leader mais aussi maa jël sama 24 heures maanaam sama temps yëpp maa ko jël déployé ko ci une cause politique léegi après dañ may fay liñ may fayee mooy nañ ma dénk dara ci réew mi loolu moo loolu politique moo ko fi indi te loolu lañ yàgg woowee li nga xam ne moo di système bi mooy ñi nga xamante ne seen privilège du dara tënkuwul lu dul jege nañ le roi jege nañ le prince ñu ngi ci biir cour bi kon bés bu seddoo privilège jotee ñoom bokk nañ ci ñi ñuy njëkk a séddale et puis am diplôme bardé de diplôme est-ce que loolu c'est devenu un crime dans ce pays pourquoi appel à candidature ñu jàppale suñ ko defee ñi am diplôme ñoo koy rafle ñi war a ñi am diplôme ñooñu amuñu droit rafle ce qu'ils doivent euh, rafle su fekkee ne ñoom am nañu compétence bi ak profil bi lu ñuy daw lu jën di ragal géej am diplôme kon léegi délit la dans ce pays bu fekkee ne kon. Ah. buñ defee appel à candidature ñi ma diplôme ñooy jël affaire yi. kon ñi am diplôme de. Euh, dugg ci suufu table yi. dagguma la bi ngay wax. non bul déformer samay propos propos du question de patience vous ne pouvez pas déformer mes propos vous ne pouvez pas déformer mes propos j'ai jamais dit waxuma lool waxuma bu ma wax loolu lu ma wax. bu ñu defee appel à candidature am na ñu jàng ñoom ñoo koy raafale gis nga jàng ku jël sa temps pour jàng déployer say moyen pour am say diplôme am nga droit bu ñu laajee nga taxaw c'est un choix di mhm. ba kee di politique yaa ngi jàng kon bu ñuy laaj ñi jàng ak ñam diplôme génneel bu la neexee parce que da nga ko wuti woon di wala danga war a daw def profil bas parce que yow danga jàng mais defoo politique xam nga lan la li fi am mooy mhm. Sénégal fii nii liñ naan làmmiñ du lekk moroomam te ñorul ku def ku ko wax la bëgg boo defee nit ñi am nañu droit ni yaa waxoon lii defoo loolu waaye maa ko def te di ko du kenn du ko wax loolu fan la am on va pas bâillonner les gens parce que nit ñi aussi am nañu réflexion ku ne am nga droit nga am sa position bopp mais nit ñi aussi ñu gisee des faits di ko relever aussi bu leen kenn sanctionné bu leen kenn yóbbu en prison parce que wax nañu seen xalaat wala li ñuy wax arrangé wu la loolu mooy wax ji kenn bañ lu ñu kenn classe politique bi man benn vision laa mës a am si ñoom musuma changer réflexion c'est la même rouleau la rek dañuy dem maanaam ay changement de rota rotation la rek changement de rôle la rek mais même méthode même procédé moo tax man seen dara duma ma bett léegi nag quand on est la politique politicienne nañu ko admettre nañ ko nangu mais bu ñu ne on est plus dans la politique politicienne parce que lii fi am mooy politique politicienne bi fi yàgg am ñu yàgg ko décrier bu ñu changé bu ñu changé wul du ñu incriminer kenn parce que Sénégal euh, li ñu naan euh, euh, coloré gannaaw lay féete nit ki nga àndal compagnon de braise am nga am nga droit bu la neexee nga boole leen ci sa naataange boo ñëwee mais qu'on ne nous dise pas que ne lii nii ñu waxoon duñ ko def kon loolu mooy non on ne va pas accepter le reniment et on ne va pas plébisciter le reniement léegi nag ku def leneen loolu am nga ci droit que ceux qui gagnent gouvernent comme noonu la Sénégal demee depuis 1960 mais continuons dans cette lancée mooy ñi gagné gouverner ak ñi àndaloon ci xeex bi ñi toogoon di seetaan neutre yi croiser les bras bañ a am dara wala bañ a espérer diriger et continuons dans ça et puis garaawul d'accord euh, très bien Abdoulaye euh, concernant également euh, cette question day doon continuité jëm ci li nga xamante ne moom moo jëm ci nomination yi mais également li ñu doon xaar ci appel à candidature ñu ngi ko doon wax depuis tout à l'heure mais un autre point bu ci dooleeku bokk ci li ñu doon xaar peut-être ci wàllub wàññite dund wi également ñu gis ne ne le premier ministre a wax que ne euh, peut-être euh, fii ak deux ans mais li jëm ci wàllu bi. Euh, mhm. parce que non laay même parce que non pour que ça soit équilibré. tu as donné la parole ak. yaay distribué parole soo joxee nit relance aussi ñun am nañu. aussi non non ku ci nekk dama la defal ndànk defal ndànk rek balaa ngay jaar sujet boobu daa am lu mu bëggoon leeral ba pare. parce que tey temps bi dafay. waaw même lu mu xat-xat ma def noonu. voilà Ndiaga Ndiaye lu mu xat-xat nuyul ma sama yaay xaj na ci. vas-y man dama gëm compétence gëm xam-xam ba chaque jour su ma xëyee damay xool lu ma yoree nan laa koy doolee lu ma gëm mooy xam-xam mooy doxal réew. waxuma appel à candidature buñ ko defee ki am diplôme. et suñu wax appel à candidature sax c'est pour compétence yooyu ñu génnee leen du dëgg mais li nga gis ku fi nekkoon sàcc sàcc. ñi fa ëpp diplôme ñu suuxaloon réew mi demee ñu def appel à candidature par exemple mu ñëw dugal foofu foofu laa waxee je suis libre ku nekk tu es libre d'avoir tes opinions c'est pas un problème. mais ku sàcc bañ condamné ko dinañ ko laaj casier judiciaire xam nga tamit am na loo xamante ne moom ko appel à candidature boo gis am na casier judiciaire ñi ñuy déglu xam nañ loolu dëgg la waaw ku fi génnee sa ñu mës la condamné eh, par sàcc yow kay tu n'as pas de chance de passer dinaa ci terminer. dama ne samay wax kenn du ko waxuma appelle à candidature. dama ne la man dama d'accord pour appel à candidature. ma fàttali la yow. communiqué conseil des ministres du man maa ko wax. dem ci dëkk ñaata lañ defagum 44 jours defaguñu 4 mois defaguñu 4 ans bu ñu dawalee ba déwén.

clair. Mais je dis encore une fois, mm-hmm. moi j'ai toujours dit sur ce plateau que je suis foncièrement contre le terrorisme des positions. yaa ngi dégg je suis pour la démocratie de la parole ku nekk ak nu mu koy gisee ak nu mu koy xalaatee ku nekk am na mbir nu mu koy jàngatee. je dis encore une fois man la ma wax wala keneen la mu wax du la nga la ma jàpp la ma wax rek c'est la vérité absolue non non moi je suis véritablement une personne wala nous devons être wala keneen keneen wala citoyen bi. tous bâtis dans la contradiction yaa ngi dégg par rapport véritablement à la guerre